Touba gi noonu di dem oto Saa Touba gi noonu di dem Saa Touba gi noonu di dem Saa Touba gi noonu di waajal Saa Touba gi noonu di dem Saa Touba gi noonu di dem Saa Touba gi noonu di dem Saa Touba gi noonu di dem Saa Touba gi noonu di dem laa ilaaha illallaah Sa Touba i noonu di dem Modou léegi mu génn Modou Lo léegi mu génn Sa Touba ngay dem laa ilaaha illallaah ay waay Modou ngay génn ñu ngay def ay débat dem Serigne Ndiaye nga ci oto ba glace glace bi ci oto ba la koy sotti Serigne Ndiaye ngay ba ci oto Modou Lo bi Serigne Ndiaye mu ngi sotti glace bi ci oto génn glace bi ñu jëndoon sànq yëpp ñu ngi koy sotti ci oto Modou Lo bi Serigne Ndiaye ngay sotti ci oto Modou bi ñu ngi ñëwaat leer kay yaa ñu boobu. Serigne def ay débat def ci oto Modou bi glace gi mu jëndoon yëpp ñu ngi koy sotti ci oto Modou Lo bi. laa ilaaha illallah cey lam cey le roi des arènes cey Modou Lo. ay Modou. baayu Fatim ak Petit Lo rakki Anta Lo jee xewle day doomi Alaaji Góora Lo ma ñuy jooy war a dajeeg doomu Fallaay Balde ma ñuy jooy cey ama rakki Kumba Balde beeg Zul Balde ay lay la laa baayu Pokol laak baayu ki nga xam ne moo di Jacob Balde hey lamb cey lamb Modou ngi waaj a génn Sa Touba na ko ndax day jiitu am yu mu def ay jaba jaba xarfa xuufaak xuufa xarfa yëpp ca biir ndeysaan xoolal journaliste yi rek ak ñoo sonn ñoom comme soq bu tuuru journaliste yi nañu lool ñun xol ñu fii rek xool ñu fii rek cay li ndeysaan maa ngi nuyu képp ku ñuy topp ci direct yi di ñu seetaan maa ngi leen di siyaara di leen bége bu baax Modou ngay waaj a départ ndeysaan talfa ngi noonu talfa gi noonu talfa gi noonu talfa gi noonu gémër baa gi noonu talfa gi noonu gémër baa gi noonu talfa nanguwul wax moom itam Talfa xale yoo bëgg moom itam lii nag jom ak fulla ak fayda koy may ndaw cay li cay li Kiley. Fast vid dig Dogo. Faso modlo bagi nono. Fas bi ñëw na. laa ilaaha illallaah keroog gisoon nañ fas kër Ama Baldé bu weex tey ñu gis bu xonk fii ci Modou. laa ilaaha illallaah waa xolal ma lii xoolal ma lii xoolal ma xoolal ma lii laa ilaaha illallah waa tey mag si yaa ngay ñëwaat ay waay borom fas wa ay waay borom fas wa ay waay borom fas wa ay waay borom fas wa ay waay borom fas wa Modou xam na fas ndax jaar na ci moo tax mu fonk borom sareet yi keroog open presse woo na leen ne ma maa ngi woo dawal ko sareet yëpp Şöyle. Ceylan cey làmb ay waay làmb jërëjëf seen liggéey rafet làmb moto yeg sareet yeeg ñëpp ñi nga xam ne nag amuñu paas wax dëgg yàlla mën nañ toog seen kër ndax di da di dañu kumpa ba dajeeg ñun ñu nangu sa téléphone ba ñu dóor la gaañ la yaa tooñ sa bopp leen seen kër yi ngeen seetaan ko mu ngeen amul billet. surtout loolu. loolu moo gën a yomb boo amul njëgu billet toogal sa kër kër ko ci télé bu dee Sénégal nga di nga ko seetaan direct bu dee Europe nga nag jëndal sa code waaye Papis a ngi ci oto bii Papis xarañ Lo mu ngi ci oto bii ñoom pare nañ léegi ñu génn Modou léegi mu génn ndax Papis pare na la la la cey waate max siwaat waay waay ñu ngay siwaat ay waay ñu ngay siwaat waay ñu ngay siwaat waay xar fa xuufa ilaha illallah ñooñooy waa Tmax ñooñu ndeysaan